salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalaq di leen ko baalu du ñee san suñu kóllare te di ko feddali bu baax a baax tey nag dañ leen indil gént goo xam ne moom it nit ñi bari na luñ koy laaj te bari na ñoo xam ne day ub seen bopp muy gént ñu dagg sem loxo wala sam loxo dagg moo xam ci concon bi wala ci përëg bi loxo nag mën naa firi mbokk mun a jege mën na firi ko bokkal di lëggéey wala ko bokkal ay mbir mën na firi ab xarit mën na firi ab jegeñaale am na ñoo xam ne loxom ndeyjoor mooy firi góor. bu de bopp càmmoñ mooy firi aw jigéen gent sa loxo dagg barot dana firi dina firi mbokk muy faatu dana firi ko bokkal di liggéey geen di tàggoo dana firi xarit buy faatu dana firi ak ñàkk ci wàllu am-am bokkul nag ak loxo boo xam ne dañ koo dagg muy génn deret loolu bu boobaa wërsëg lay doon wërsëg lay doon bokkalitit loxo boo xam ne dafa dagg nga téyeku loolit jaaxle gooy am ku ci dimbali la mooy loxo bu dagg ba noppi nga téye ko nga xam ne rotut loolu dimbal nga am ci sa jaxle ba tey bu faral di gént lu bari sam loxo dagg dana tekki nit ku sàmm ku téye loxoom bu dee kuy liggéey katub tur yàlla wala jaamu katub yàlla ñaare bu dee gént lu baree bare am loxoom di dagg dana tekki loolu gént sam loxo gudd maanaam yokk wala sa përëgu loxo gën a am kàttan loolu ak yokkute la boo doon yootu dara danga ci jot mooy gént sam loxo yokk wala sam loxo am kàttan loolu ndimbal la loolu ndimbal la ba tey ku gént yor loxo yu baree bari loolu lu baax la ay mbir yu jàppandi la kon mbokk yi loolu daal ci gàttal mooy gént sam loxo ñu dagg ko wala sam loxo dagg moo xam génn na deret wala génnwul deret wala wadd na wala waddut yooyu yëpp day am lu muy tegtale kon lii ab junj la ci a boo xam ne dana ci dimbali bu ba ëllëgee boo gisee tey lu mel mel nga xam sam gént fan la jëm ngeen way di abonné ci chaîne bi ndax bokkoon na ci lu koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu